arbitre bi sifflé na combat bi ndeysaan Laye Brise Ly moo ngem mo ngem lu wex li confiance mom lañu jakar lol nonu noonu demé nañu wet ndeysaan confiance ak Laye Brise Ly Laye Brise Ly tëngeej la mujjee ndeysaan confiance xeex na ërtal na confiance dug na ci gàttam léegi ëttal ko xeex nañu ñoom ñaar confiance ngay dóor confiance a ngay dóor laay brise si la ngay fayu jàppante nañu ñoom ñaar xeex nañu xeex bu metti ndeysaan jàppante laay brise li confiance laay brise li na ko laay laaxa illa laa jël warëy na laay brise li na confiance